day wax ci dog bii kuy julli mënta taxaw nga xam ne day toog mbaa day dëdd mbaa day wéeru dana ci waxaale itam lu ñuy fayee julli ya raw ak lu aju ci fay julli ya raw mu ne julli farata moom soo mënee taxaw day war nga taxaw jonn te bañ a wéeru su mënta taxaw rek te bañ a wéeru nag waaye mën na taxaw te wéeru kon na taxaw te wéeru su fekkee mënul dara ci taxawaay nag waaye mën naa toog te du wéeru ci dara kon day toog te bañ a wéeru ci dara su fekkee ne itam toog ga mënu caa ñàkk a boole wéeru waaye su wéeroo rek dana mën a toog julli kon na toog te wéeru su mënul dara ci toog nag lay door a tëdd waaye li fekk mi ngi mën a toog julli moom su tëddee di bëgg lu ko noppal rek julli ga yàqu su fekkee ne mën ngaa taxaw waaye dangaa ragal ne boo taxawee am na tawat joo xam dal la woon te dana la dal ba am na tawat joo xam ne daloon na la te dana yéex wér mbaa dana gën a metti loolu nga waxoon ne mooy taxaw sañ a tiim loolee ba tey ngi waxaat fii ne soo ragalee ne boo taxawee julli farata ga loolee dal la kon taxawaay ba wàcc na la soo ragalee ne sax boo taxawee am toj génn ci yow te boo toogee am toj du génn ci yow kon na ngay toog bañ a taxaw sàmmonteeg sag laab te bañ a taxaw sam njàpp di firiku am na nag ñu ne bu fekkee ne bu taxawee am njàppam toj itam te bu toogee toj du tee moom day taxaw rek ndax loolu ngànt la bu fekkee ne nag taxawaay ba wala toogaay ba faaw nga boole ci wéeru da ngay seet la ngay wéeru bu mu doon kenn ci yaar yi nit ku amee janaaba ak jigéen ju amee dereti mbërëg te fekk ñuy say araamante ñooñ ñaar ko julli wéeru ci moom def ko loo xam ne taamuwuñ ko te dañuy bëgg nga baamu julli ga ca waxtu wa ku tollu ci amee janaaba ak ku tollu ci gis baax dañoo sori lool julli kon nag nga wéeru ci ñoom fekk ñuy say araamante nga wéeru ci ñoom julli taamuwuñ ko boo ko defee nag ñu digal la nga baamu ca waxtu wa nde doo sañ a fekk koo xam ne sañ ngaa bànneexu ci moom ni ki sa soxna mbaa jébbéer ci jamono yi jaam bi jigéen amee ngay wéeru ci moom di julli loolu moom doo ko man nee nañu bu doon julli wéeru ci ku mel ne soxnaam mbaa ak jaam bu jigéenam buy am bànneex ci wéeru ba rek julli ga dal di yàqu waaye it nag lañu waxoon ne araamanteem ba tollu ci gis baax wala mu amee janaaba wéeroo ca moom ñu bëgg mu baax mu ci waxtu wa de fekk nag mu amoon leneen lu mën a wéeru waaye bu fekk amutoon leneen moom sibuñu ko te it kenn du ko digal baax mu ci waxtu wa bu ñu nee nag mu julli wéeru ci ab araamanteem bu amee mbërëg wala ko amee janaaba lu ñu sib dong la amaana saxel ne waaw lu tax def lu ñu sib rek ñu ko ci baamaloo ci waxtu wa bul fàtte ne am na loo weesu woon loo xam lu ñu sib la te dañ caa digle woon baamu ci waxtu wa loolu mooy julli ci yësukaayu gëléem xam nga gëléem ay neefareem ak sawam laab na waaye dañ noo aay woon julli ci ak yësukaayam nga xam ne waxoon ne ku julli ci yësukaayu gëléem moom doonte dafa lal lu laabit te tey ñu dugal ko baamu ci waxtu wa su fekkee ne mënta taxaw julli yóoru sax mënu ko mu ne kon toogo ci sës waaye nag toogaay ba danga koy tegalee na nga waxoon ci taxawaay ba nga xam ne day njëkk a toog te bañ a wéeru su fekkee nag toog ga mënu caa ñàkk a boole wéeru mu door a wéeru waaye su ma nee toog te bañ a wéeru mu toog wéeru te la mu wéeru mu sës ko dooleem ba nga xam ne su loola daanu woon mu daanu kon julli ko daldi yàqu nee na nag li ñu wax ne yent yi dañ ko war a tegale te mooy taxaw bañ a wéeru teg ca taxaw wéeru toog bañ a wéeru teg ca toog wéeru ñu wax ne boo ca man ci tegale boobu def ba ko féet suuf sa jur yàqu taxawaay bu ànd ak wéeru bu la neexee man ko ba noppi toog te bañ a wéeru nga xam ne bu fekkoon ne boo taxawee faaw da ngay wéeru te boo toogee moom mën ngaa bañ a wéeru nga bàyyi nag taxawaay ba toog te bañ a wéeru du tee julli gu baax su fekkee ne nag moom bu toogee itam faaw day wéeru bu taxawee itam faaw day wéeru kon taxawaay ba du mën a ñàkk waaye ndegam taxawaay ba faaw day ànd wéeru te toogaay ba moom du ànd wéeru kon nee nañu su bàyyi woon taxawaay ba toog julli te bañ a wéeru du wàññi dara ndegam nag farata lay julli waaye moom mënta taxaw faaw day àgg suuf day toog kon dañoo sopp bu dee armal mu toog tooginu ferenkalaayu bu jàllee di jàng ca gannaaw armal ga ak ba mu rëkoo ak ba mu sikkee ci rëkoo bi yépp rek mu ferenkalaayu noonee mu tooge woon bu dee sëgg nag jëm ca sujjóot ba door a soppi aw tooginam def nu mu daan def ci toogaayu sujjóot su sujjóotee ñaar sujjóot ñépp nag ba delluwaat ca ràkk ba ci sus mu defati na mu defoon ferenkalaayu bu rëbboo ko siggi lépp muy ferenkalaayu ba ba muy jàll ci sujjóot yi defaat na mu defoon fu mu tolloo daal ci diggante ñaari sujjóot ñi moom ak jataayu taaya dañ soppi woon mu tooge na te ñu waxoon ko ci gannaaw ci ngëneelu julli noonu lay def ba tey li tax mu ne mel ni koy naafila naafila moom sañes na caa toog te fekk nga mën a taxaw waaye boo doon toog di naafila itam dañuy sopp li ñu waxoon léegi booy kàbbar armal nga ferenkalaayu booy jàng faatiha ja ak la ci ropp ca saar wa yépp nga ferenkalaayu ba ngay sëgg di rëkkoo ak ba ngay siggi lépp nga ferenkalaayu booy sëgg nag jëm ci sujjóot ba nga soppi toogin wa diggante ñaari sujjóot ne toogaay ba nga fay toog ak toogaayu taay yépp nga def ko ni la waxoon ca gannaaw ni moom lañ sopp ku na tooge boo dee julli dañ ne woon nag naafila su fekkee mën ngaa taxaw ba noppi bàyyi ko toog ndax bëggul la noppal genn wàllu tuyaaba ja ngay am ba muy tàmbali naafila bi nag bu ko tàmbalee taxawaay te yéene woon taxawaay boobee booy wéy kon gannaaw ba du sañ a toog te amul ngànt saa yoo xam ne nag la ko tax a toog naafila ngànt la du tee ñu bindal ko tuyaaba ñu mat bu ñu nee jullit farata ba ngay kàbbar armal ak ba ngay jàng fatiha ja ak ba ngay xawi ku jëm ca rukkoo ba taxawaay boobu farata la xam ne ko yooyu jamono soo mënee taxaw te doo wéeru nga wéeru nag ci dara sës ko sa doole ba nga xamee ne su daanu woon rek mbaa ñu mbas ko rek da ngay ànd ak moom daanu yooyu itam xam ne kon julli ko yàqu naa ndax mën ngaa taxaw te bañ a wéeru te yow taxaw nga wéeru bu doon ca toogaay ba it noonu lay doon maanaam fu ñu la aaye wéeru ne la yow sañoo ko nga wéeru nag waaye wéeru ba sësoo ko sa doole bu loola daanu woon du tax yow nga daanu kon wéeru ga dañ koo sib rek waaye du tax julli ga yàqu su fekkee ne julli toog sax wéeru mënu ko tëdd rek la man kon sopp nañ mu tëddee wetuk ndeyjooram kanamam jëm xibla su fekkee ne it mënut wetuk ndeyjoor ñu sopp mu tëddee wetuk càmmoñ te kanamam jëm xibla su tëlee tëdd càmmoñ mu tëdd gannaaw li ñuy wax jaaxaan waaye su boobaa nag tànk ya day jëm xibla bopp ba jëm ca fa ca des dañuy wax ne nag su fekkee mënta jaaxaan kon day defeenu nga xam ne biir bi ma féete suuf waaye na su dee defeenu moom bopp bi day jëm xibla tànk ya jëm fa ca des mu ne bu dee ci ñun nga xam ne suñ xibla daa xaw a féete ci penku bu fekkee day defeenu boppam day jëm penku ay tànkam jëm sowu yóbbale wuñu nag julli defeelu ak julli jaaxaan su ma nee jaaxaan moom rek kay baax te jamono bu defeelu itam du baax mën a tëdde nag day joor mën a tëdde càmmooñ mën a jaaxaan nag moom tegal yett yooyu dañ koo sopp rek lu mu ci man bàyyi ko dafa ca desit du dee julli nga baax boo xam ne taxaw rek la man mënta àgg suuf toog dañ ko wax ne ko sa julli gépp na nekk ab taxawaay da ngay taxaw rek te junju rukkoo ba ak sujjóot ba te na ngay sëggale sujjóot ba gën a suufee na ngay sëggale rukkoo ba su fekkee ne nag mën laa rukkoo mën laa sujjóot nañ ko diglee waaye mën ngaa taxaw mën ngaa toog mën ngaa taxaw mën ngaa toog mën laa rukkoo dëgg-dëgg nag mën laa sujjóot dëgg-dëgg kon rukkoo ba moom def ca la nga man ci sëgg nu man di toll te defe ko ci ab taxawaay sujjóot yi itam mënoo ko waaye da ngay toog da ngay toog ba àggal junj nag sujjóot ba kenn na nga ko mëne loolu ñu ko wax nag ci bu dee junjël rukkoo ba na nekk ca taxawaay ba bu dee junjël sujjóot ba nekk ci jotaay na ko sàmm bu ko deful rek julli ba yàqu niki bu defoon julleem gépp mu dib taxawaay mbaa julleem gépp mu dib toogaay it julli ba day yàqu koo xam ne mënta sujjóot dëpp ab jëxam ci suuf na bàyyi jëba bañ caa muur dara dara bu ca muuroon loo xam ne bu doon sujjóot ci jëba loola dox diggante jëba ak suuf sa mbaa la muy sujjóot kon julli ba yàqu daga moom mënta sujjóot ci jëfam itam bu ndax jëba mu muur ca dara koo xam ne daa amee ay gaañu gaañu ci jëba mu mënta sujjóot waaye nag mën naa sujjóot ak bakkan ba maanaam teg bakkan ba te bañ a teg jëba mu daal def noonu sujjóot teg bakkan ba te bañ a teg jëba koy julli ba baax na ndax ndegam jëba daa amee gaañu gaañu mënu koo teg mu teg bakkan ba dal nay doy daa am na ñu ne du baax ndax ndegam moom mëntoon sujjóot ca jëba daa waroon a junj rek sëgg te sëgg ba suure kem na man te bañ koy jéem a weccee sujjóot ak bakkan waaye li mu wax nag la ñu sukkandikoo koo xam ne mboolem ponk julli gi mën na ko waaye nag bu xasee toog benn yoon àgg suuf du mën a jóg ci dañ koy wax ne ko sa rakk bu jëkk kon da nga koy taxaw ni ko dara dërut daal taxaw armal jàng rukkoo bu àggee ci sujjóot nag ba toog nga far wéyale noonu rek àggale julli ga ci jotaay ndax ndegam yow boo xasee toog moom jeex na doo mën a jógaat kon benn ràkk bu jëkk ba lépp na mat nga taxaw ko ràkk des nag nga toog ko koo xam daa àgg ci tële tële ba nga xam ne mën naa yéene ci xolam julli gi dawal tam am xelam fa julli tàmbalee di ko rabat di ko rabat ba fa mu yem waaye mënta yëngal benn benn cëf bëtam sax mënu koo xef ko it nee nañ du tee julli war ko ca noonee maanaam na yéene dawal yéene ji ci xolam rabat nag julli gi fam tàmbalee ci armal ak la cay topp ba asalaamaaleykum na mu war a tegaloo mu teewlu ko ci xelam ak xolam su fekkoon ne nag mën naa yéene ba noppi mën a yëngal dara ci ay cëram doonte sax bët yi rek la mën a xef ak xippi koy day war mu yéene julli ga te yëngal cër ba mën a yëngal bu dee bët itam mu koy xef ak xefaat di junjal rek julli ga mu kàllafi nag ndegam julli wàccu ko ndax tagguwut ak sagoom day fexe ba fu julli jote rek mu jullee na mane waaye du ko sañ a yéexe di wax ne damaa mënul nangam day bàyyi ba mën ko niki mu siburu rek ba mu bëgg a jullee mënu koo jullee ndax mu ne daay bàyyi ba siburu si tane ma door a fay li fekk nga xam ne rek xelam tàggoowut ak moom mi ngi ànd ak sagoom rek fu julli jote na ko jullee nam ko mane bu amee nag lu mu tële ca julli ga di julli ba ci biir mu man ko kon bu dee lu ñu waroon a tegale faaw loole mu tollu woon te man ko da ko daal tàmbalee def mel ne ba muy julli dafa tëddoon ndax mëntoon a toog waaye ci biir julli gi rek mu far tane ba mën a toog kon faaw day jóg toog bu doon lu ñu soppoon tegale ga mel ne dañoo soppoon tëddi wetum ndeyjoor teg ca tëddi wetum càmmooñ teg ca jaaxaan su doon tëddi wetum càmmooñ ba ci biir julli gi mu mën a wëlbatiku tëdde ndeyjoor it ñu sopp wëlbatiku tëdde ndeyjoor